kontaan ni nga koy defee saa su ne jóg dem seeti benn ndaanaan seeti koo xamante ni kenn dootu ko présenté ci mim réew du Sénégal Ndiaye ak bitim réew muy Baye Demba 5-5 ku ne Baye Demba 5-5 sa xel dem ci ndem si yàlla sa ndongo loo ndax bu ñu xamee Baye Demba miin ko ndongo loo lañ ko xamee woon nii def fas yéene séq moom waxtaan mu yaatoo yaatu hmm. ci diiru gàtt bala ñoo tàmbalee waxtaan bi dañu bàyyi bàyyi mu nuyoo Baye Demba nuyu na la waa mais maa leen di fay la di leen nuyu seen tur ak seen sant hmm, di nuyu kilifa diina yëpp di nuyu sama yaay ji aji daaro aji daaro mbay mu yàgg fi lool ñaanal sama baay jàllaa ji sañ suuf ayof lool ci kawam di nuyu bitim réew bi suñu président muy président Macky ma madame fay di nuyu kilifa diina yëpp di wax naan réew mi daal yàlla na fi jàmm yàgg ah di rafetlu seen teewaay tey ci kër gi fii ci Karamoto maa ngi ziar. jërëjëf kàddu yi am na solo nuyoo bi am na solo tawarkàlla bàyyi bàyyi li ma ko waxee léegi ci samay tàmbali kàddu mhm. ku ne bàyyi dem ba ne sensé waaye bu fu ñu gën a xam bàyyi ba mooy ci ndongoloo bàyyi bala ñoo tàmbali waxtaan damay ñëw sa diggante ak ndongoloo waaw moom ndox ak suukar la mooy li yàlla bind ca aras mm. ndongo di sama xarit doo doonoon ku baax xol bi mbaax rek a ci nekkoon Hmm? ñu bokkoon groupe jàmm di nuyuwaale waa groupe jàmm yëpp sama diggante ak ndongo nag euh, loolu cofeel loolu cofeel la woon lu waroon am ndax àdduna moom ndax àdduna moom boo ci nee cëpp yàlla day boole ñaar ñi bëggante mu nekkoon sama waay vraiment ñu dem daje ñu dem daje ci simba yi ak pàngoom xam nga vraiment foofu foofu na après foofu la relation bi demee ba booloo mu doonoon sama seex kooku jam jaalu mi si jàjj Massamba nee na Fall ndongo mu sëriñ fàllu kooku sama xarit la woon ba ba may wax si moom sax wax gi yu jeex ndax ànd boobu dëgg la woon li mbay jee na ànd bu yàgg bi dëgg la kooku sama ànd ndong moom dëgg la woon muy ndongo ndox ak suukar la woon. mu doon koo xam ne senegal mënatu koo fàtte. dëgg la monument boo xamante ni sunu borom boo ko fi samp di ndongoloo tey groupe jàmm. Mhm. fu mu toll. groupe jàmm xam nga groupe jàmm moom boo nee groupe jàmm rek jàmm mooy lépp waa tey groupe jàmm comme ni mu la koy waxee may nuyuwaale Djily Djily ñaa nekk suñu manager. tey group jàmm comme comme ni mu la koy waxee mën naa ne ba léegi mi ngi fi ndax tey Ndongo Lo bi mu fi génnee ba tey ndongo yu ndongo yu bari danoo feeñ. ndongo yu bëri booy yi way bu nuy way da ngay dégg ndongo. mais est-ce que booy yi way mën mën nga cee génne kenn kii. bu mu lay jox la jox ndongo li mu daan joxe. Mhm. est-ce que xaw a méngoo ko moom. waaw benn bi dinaa ci tàmmu caat. waaw muy caat sekk ndax moom dafa bëgg a nongu waaw moom dafa bëgg a nongu caat buy way caat buy way da nga naan nongu looy way Sidika waaw booy Sidika tamit waaw booy booy bu bërki démb dama daj ak moom ci soirée bas cung dafa way dafa way dafa way bu dugg ci nongu boo mënatu moon tëye sam bopp ma jug taxaw Sidika day way comme Ndongo Lo macha allah barki démb rek si di Sidika na bu Cees mm-hmm. Sidi Diop moom it mm-hmm. day way ba mu yàgg mu dugg ci nongo mm-hmm. xam nga booy yu bari daal ba ci jibi say maam seex suñu rakk ji mi ngi noonu euh, ba tey damay des ci groupe jàmm ma sa dégg Baye Demba sama seexu yàlla yi. dëgg la Assane kii mi ngi Angleterre kii mi ngi Paris. ñu hmm. ngi fi woon rek bu yàggul lool. mais waaw mais ñoom dañuy gérer fan ñu nekk. Hmm. ñu ngi fay gérer ñu ngi ay yeneen groupe jazz. mais ba léegi ñoom ñaar dañuy toog seen néeg ñoom ñaar rek dañuy toog seen néeg kii bu yoree basse bi. Hmm. ki yor kii yor clavier bi. ñuy dugg ñuy dugg ci mosu ndongo yi. ay mosu yaay mosu yonent bi mosu seen Fallou yi. xam nga ay ndorteel buñ koy géyee buñ koy géyee tey ñoom seen bopp dañuy kontaan ndax lu ndax lu nu maîtriser la lu nekk ci ñoom la benn jour nag comme ni ma koy waxee rek benn jour dina am groupe jàmm ñun ñëpp a dajaloo ndax loolu damay neex man. waaw te foofu laa doon bëgg sax loolu jàmm war a dajawaat. waaw tegaat sur scène. Mhm. groupe benn lit benn lit vocal teg ci kanam. non bu boobaa keñ bu boobaa keñ bul sonn dinañ dajale booy yu bari ku suñu ñu jox la mosu nangu. Hmm. waaw. boobu xanaa test doon. ah bul sonn bul sonn loolu loolu bu amee man damay neex. Hmm. ndax ndax waa jooju lu mu fi bàyyi la. Hmm. waaw lu mu fi bàyyi la. kon kooku war nu ko fàtte. ñuy ñaan nag ñi ngeen ñaan rek incha allah ñu defal ko bés bu rëy te bu boobaa yéen di ngeen ko yëg. président dina ko yëg. xam nga ñi ñu ci aar borom kàngam yi parce que yëfu ndongo warul doon lu ndaw waaw kon dajaloo boobu maa ngi ñaan yàlla incha allah yàlla na am te incha allah dina am yàlla ci yàlla def ndox mu sedd ba li ngeen ciy séntu suñu borom defal leen ci lu foofu seen jot ndax ndongo ni nga ko waxee léegi doon na koo xam ne monde musique dootu ko fàtte déedéet ndax liggéey na fi loo xamante ne empreinte bi ba tey muy boo saa yoo dégloo morsam da nga naan tey ni ma ko waxee sànq ñu ngi la gënee woon ci Ndongo Lo mhm. mais Baye carrière fan la débuté ci Ndongo la débuté wala avant Ndongo Baye am na fu mu nekkoon. avant Ndongo damay jiital 5-5. 5-5 waaw 5-5 rythme ma jóge fa nekk ci Ablaye Mbaye. Ablaye Mbaye mel waaw boobu temps yooyu ñu ngi dem see ci rajo Gune yi. rajo Gune yi mi ngi nekkoon fii point e. li ma lay wax yàgg na. Mhm. ñu dem répété fii suñu kër boobu cabine bi. boobu cabine moo am. cabine téléphone yi waaw yi maa la wax lii kañ li may wax li may wax kañ dama am lu leer lu ma ci wax ndeysaan Ousseynou ak Assane mm-hmm. seexu yàlla yi seen mag Zal mm-hmm. ndeysaan bu Zal bu Zal Moussa na ñëw pour répéter ci ak Ablaye Mbaye Ousseynou ak Assane ñoom dañuy toog ci bunt bi boobu commencé gunu musique di xaar Zal pour mu pare ñu jëlaat basam yóbbul ko ko mm-hmm. booy bu Ousseynou ñoom law ñu ngi ci biir di répété ak Souleymane Diop bi ma Souleymane Diop batteur bi ma nekk ci Pape boobu ñoo dem répétandoo ñu bokkoon groupe ci ab lay mbay ma jóge fa nekkoon ci xalaat groupe xalaat xam nga groupe xalaat tey boo koy way maman xam nga maman nampalal xale bi def naa ne way boobu. ñu bari ñu bari ñu bëri duñ ko xam. waaye boo ko dem boo ko dem laajte ah. boobu Abdou Mbaye moo nekkoon xalaat xalaat mi ngi nekkoon fii Centenaire Gibraltar mm-hmm. boobu man maa ngi woon groupe groupe xalaat mm-hmm. waaw jóge fa. mbay pousse ma ñuy jouer centre culturel boobu Youssou Ndour mi ngi toog ma doon lu ndaw afro bopp bi mbay jëy tegal ma tom tegal ma tom ak keskeleer boobu Youssou boobu Youssou Ndour Youssou Ndour dafa defoon ni man après batterie laay tëgg ndax bi mu tuddee def na def na mbay jëy baay mii mi dama nga yóbbu ko mu dem jàngi ji batterie Youssou moo moo moo rakkam jooju Ibrahima Ndour. Mhm. Euh, ci mbay ngay yóbbu le centre culturel nga teg caisse mhm. waaw. gannaaw ba bàyyi ba ba génn lan nga parce que parce que dafa am morceau boo xam ni te groupe cinq 5 la. Mhm. bu ñu demee ba ci kanam incha allah loolu dina ko teg ma won la loolu groupe 5-5 dafa am dafa ñun dana am benn bàkk boo xam ne mi ngi tudd santal. bàkk bi waaw bàkk bi santal bàkk boobu. bàkk boobu doo doo dox mu ba dégg tëggkat yi di ko fawe. seng-seng nag dara waaw ndax loolu dafa riis hmm. loolu doo dox mukk kat ci di ko fooy hmm. bu ma amee nag may génne ma ci biti ma doon lu tuuti boobu tubaab yee ngi toog hmm. mos boobu nag may dawal di dawal di dawal di dawal di dawal après bi ma génnee mbay daf ma langaam bi affaire bi jeexee ndax ndax ndax boobu public bi kontaan na ak ni ma toll noonu di joxe loolu. kon daal mën na ne mbay waaw mooy li may wax rek. xam nga li nit ki jàng li nga nàmp bokkul. mais yow da jàngaat. jàngaat ko. jaar ndax naa jaar na fa tey man damay tëgg balafon man balafon jàng naa ko. balafon benn si boppam jàng naa ko. loolu jafe waaw jàng naa ko jàng naa balafon. Hmm. mais école des arts naka la mhm. mhm. war a dem école moo fa nekkoon. dam jàngale kuuru kuuru kuuru tëgg tey tubaab bi dañ fa dem ñëw. Hmm. yeneen doomu aadama tey ñu bëri ñi fa jógee tey ñu ngi ci orchestre tey sama papa fa la nekkoon mu dugal ma fa gën a yokk xam-xam bi looloo waral tey moo tax ma ne la macha allah tey foo ñu tey foo ñu dugal ñu dem ndax loolu ndax loolu lu ne ci ñun la. Hmm. waaw dafa ne ci ci acoustique beeg musique gu rab bi sax boo na ci dugalee dañuy dem. Hmm. jazz Sansa tey boo ñu tegaloon kongaas fii ma dawal lu neex gaa yi pàccaanga gaa yi pàccaanga fii toj Sansa bi lépp tàkkarnaase ndax lu ne si ñun la mais mais mais ba tey man damaa ndax euh, Baye Demba mhm. li nga wax noonu gi musique yooyu yëpp te jamono ji booy yi dañoo jël euh, musique nigérienne waaw booy boo xool ñi ci way majeure partie bi mhm. dañoo daw jëm wet googu est-ce que jàppoon itam euh, musique Sénégal dafa commencé dee wala dafa am lu lu bees bu ñu man pour man sax pour man sax euh, pour man sax dafa teel nun gën a jàngaat rek. kon booy yi des na. noonu arrêté tuuti jàmbaar lanu hmm. ak ak ak xam nga âge bi ñu am. gëree lañu ñoom fi ñu tombee la. ñoom fi ñu tombee dafa neex ndax dañu ñëw fekkee lépp tey boo laajee mbay ñoom Youssouf seen jaar-jaar. Hmm. bu la nettalee dangay yuuxu. ñun dem nañ ba Gambie G3 dem nañ fi ba Gambie G3 date bi na ñibbisee 3 date laa lay wax de ñu ñibbisi ñu jox ñu 2500. juróomi téeméer juróomi téeméer. te ñetti ñetti te ñetti date loolu Gambie la ñetti ñetti programme ñu G ba noppi manaay manaay tey fii neex <laughs> ñu ne ma jàpp 2500 mu muñ tourné jox ko sama yaay. waaw. a wala soirée bi lañ bi la a marqué bi ma gën a marqué. Mm-hmm. te yënguleen leen la woon. waaw. nongo ak groupe jàmm. ndeysaan. xam nga dañuy gérer dañuy gérer sànn boroom jom la woon. moom nongo nongo daf feebaroon mais borom jom la woon. nongo ba ni ñuy dem états uni dafa yóbbaale feebar. bi ngeen dem seen euh, billaahi ndax ak jomam. moom bi ñu dem bi ñu dem ambassade sax ñax mi xam ne li may wax noo nga feebar la ñëwee ambassade mais boobu contrat jàmbur contrat jàmbur bi mu jël xam rek ñu see yëngu mais feebar na ndeysaan bi ñu tëggee ba mu yàgg après dafa bàyyi micro bi rek wàcc ci kaw waaw ci kaw seen bi wàcc bu public bi bëggul public bi bëggul leen sax wan ni y quelque chose xam nga noonu mu wàcc après noonu ñu dawal ba ci biir ñu arrêté soirée bi xam nga après ñu dem ba ci biir na ñu arrêté ñu arrêté ñu arrêté soirée yi ñu def xam nga ay affaire yu bari daal soirée boobu moom lu ma marqué la waaw soirée boobu lu ma marqué la nongo mais jour bi nga toogee ne jour boobu dañ dem jeu ji club met ci jour boobu non boobu ay ma ay 17 mhm. ay 5 heures dañu jóge fii ak ak sañ dem di géej ñu nekk ci ñu nekk ci car bi booy ñu ngi tëgg di fawantu nii avant ñoo àgg quoi mais man fi ma toog maa ngi toog rek maa ngi toog concentré wu booy ñu ngi tëgg mais damay jékki ne leen xam nga bàyyi leen tëgg mi après noonu noonu ñu dem dem dem ba kilomètre wàcc. ba war a ba war a jouer spectacle bi Baye Ndiaye. Mhm. Baye Ndiaye Baye Ndiaye rakk asi Ndiaye. Mhm. woo ma téléphone na ma may bàyyi man li may dégg lan la ma ne ko ci lan après ma génn ma génn ba ci biti mu ne ma nongo ma ne ko nongo lan mu ne ma mu ne ma ma mu ma non mais dama dégg ñu ne nongo wàcc na ma ne ko bàyyi leen ci biir waxuma leen dara dama génn rek jël taxi. jubali mais bi ma demee ba gis parce que xam nga góoma ko woon quoi après na bi ma demee nit ñi di ñëw nit ñi di ñëw nit ñi di ñëw ndaysaan boobu boobu bi ma amee Petit Mbay ak Youssou moo fa njëkk Youssou ndaysaan Youssou moo fa njëkk jour boobu buñ ma ko waxee lu jóge ci man après man ne non non non non non dëgg la boobu góoma ko woon quoi mais nag ma delloo yëpp ma delloo lépp ci yàlla te xam ni moom bu yàlla moom bu soxlaa rek jaam ñàkk ndax moo ñu fi indi moo ñu fi jëlee jour boobu ndeysaan jour boobu li ma yëg li ma yëg mënu ma ko wax de benn doomu aadama ndax ndax ndax ndax bëggoon naa bëggoon naa affaire bi gën a continuer mais li yàllay def xam ni lu yàlla def rek loolu la. Euh, album bi ñu mujjee def. Mhm. kii defar affiche kii defar affiche bi bi nekk ci bi. waaw bi ñu ko laajee te ne bi muy foto ndongo ndongo da ko da foto foto yu bari. Mhm. donc mu teg ko foto foto na ko ndongo ne ko bi mu gëstoo booboo baax mu laaj ko mu ne ko defal bii. Mhm. bii baax mu mel ni moom dafa dafa sentiroon loolu. waaw ndongo xam xam xam nga ndongo tey boo déggee ci ay woyam yu bari. Mm. boo déggee ci ay woyam yu bari. ñu dem sànni ay message tey tey boo dégluwaat tey ay wayam man dama jékki-jékki toog nii dégluwaat ay wayu ndongo dama nag sama waa ji sama waa ji daal dafa mel ni dafa mel ni ko yëgoon daal. waaw ndax ay wayam da ngay dégg muy yeete. mu lay indiwaat ci àddina. di tàggoo quoi. waaw ay wax ay ay signe la. woon. ay signe la woon ñu nekkoon suma moom mu nongaloo nongaloo benn jour benn jour benn jour doon toog mun a ma bàyyi sama turaal bi mun a ma mu xëcc ndeysaan xëcc turaal bi. boobu mi ngi golf mu xëcc turaal bi na ma 5 lii yëpp lii yëpp lii yëpp ay kii la. ay texte waay la lii yëpp mun na ma man mais man duma ci liir man ci asamaan si laay xool di liir. mun na ma man mun na ma man fa xalaatee te noonu la meloon. ndongo ndongo day taxaw ci kaw seen xool public bi rek ñun ñun ñun daawul woon sa répété bu ñu dem répété ay benn ñaar njéey bu ñëwee bu ñëwee ba taxaw ci kaw seen bi bu nee der ñun xam ñu fi ñu koy téye. waaw dafa mel dafa amoon benn boo xam la woon seen diggante. ay dialogue xam nga. ay sa gis-gis mën na ko nangu sama gis-gis mun na ma sunu gis-gis du benn sa gis-gis mën na ko sama gis-gis na ma sunu gis-gis. xam nga yooyu dialogue yooyu vraiment damay toog di xam nga mu manqué ma trop quoi. waaw ci ja am na ci bis euh, naa ravin mhm. mu nekk muy waaye am xale bu rafet bu taxaw mu ne loo waxati waxati. waaw gisee nen dëgg la. ndax après laa laaj laa gëstu loolu. dafa am lu taxaw ci kaw seen. bilaay ndongo wax ak nit ñi kon ne ma lu baax. Mhm. ndongo bu ne lu baax mën na ko jegeel mu ne ma lu bon mën a ko fenteel. Mhm. xam nga boobu boobu ambiance la ci kaw seen bi. mosu tatafuma tatafu dafa xew taan ak temps tatafuma lu baax mën na ko nongo jegeel mën na ma lu bon bàyyi fenteel kon yóbbul xale bi mbay tama tekk ci waaw kon dafa diw diw maanaam diw bi ngeen déggoo woon dama dem mujj ma daan gis Youssou Ndour Mbaye Gueye Faye waaw bu da ngay jël Youssou Ndour jox la benn dëgg la nongo xam ma tey mooy li ma lay wax rek maa ngi moom maa ngi moom danoo dégg woon ba nga xam ni loolu cofeel la mm. cofeel la tey ci kaw seen day taxaw rek ma xam fi mu jëm lu mu ne der ma ma tëgg benn zone ndeysaan 4444 cosaan mm. mu yëg di bëf yooyu suñu jël micro bi cosaan neexul ba neexul waaye xale bi dafa am sóol ndongo euh, yuusu ndongo bokkoon na ci ñi ko dem daane ci way mm. waaw ndongo ndongo bu mu ndongo bu mu sànn ñëw ndongo bu mu sànn ñëw cosaan ndeysaan yuutu yuusu sunu mag ji yaatal ko jox ko micro bi mu woy ba xolam sedd hmm. mosu 4444 bi day woy ba mu yàgg mën a bay jéey bu yuusu di woy yaa koy jéen waaye man bàyyi dem bàyyi may jéen te boobu maam moom ñu ngi si kaw seen bi mooy mu woy fu lu neex ndeysaan ay boobu jamono ñoom ñoom ñoom Ani Camara hmm. El Hadj Diouf équipe nationale ñëpp ñu ci biir hmm. mosu soxna loo ñëw mu dugg ci Serigne Touba. téye téye El Hadj di leen way ci non mosu sëñ bàkk soxna loo bi keroog la Ndongo Lo di way non keroog dama daanu. maa la wax loolu. <laughs>